Samba Ba ñu ngi ziara di nuyu sa internet yëpp di leen ndokkeel di leen ziara te di leen tatagal di am mbégte bu baax ci sa teewaay njëkk ak itam sa yitte ñu ciy bég lool lool lool lool nga laaj ñun nag laaj boo xam ne neex nañu lool te dinañ ci sawar a tontu gàmmu gi cosaanam cees la ndax Thiès laa jëkkee ni ko ji faydu ànd ak Cheikh yàlla mu dafa ko fa mu gudd loolu ànd ak wér ñu nekk Thiès nekk Thiès daf nañ fa lu mat ay juróomi at gannaaw gi ma tox si dakaar bi ñu ñëwee Dakar ak ren nag defe naa ren mooy huitième édition bi ñu ngi amal gàmmu gi wax dëgg yàlla itam nag jéego yi moom sant yàlla la ndax at mu jot rek ñu ngi gis yokkute boo xamante ne at mu weesu ko woon lii nga def ak ñun ñu tey preuve la ci loolu bañ dalee gàmmu ba léegi c'est la première fois ñu interviewé ngir ñu wax ci gàmmu kon ñu yëg ne gàmmu gi mu ngi am yokku te loolu laa xarwat ndax ñu ko Cheikh Ibrahima moom ku nekk na ne tànki la am amul tànki kanam a a baax a baax a baax. xam naa gis nañ Fayda ne moom toll coow li bëri na fu ne nga gis taalibe tamit di yokkoo fu ne loolu gis moom mooy saafara bi ak la moo ko waral. waaw mbir yi moom. sëriñ bi daf ñu daan wax ne ku ceebu jën a bàyyi jàmbur gënal sa ceebu keccax a bàyyi amaana doo lekkee nu la neexee wa illaa itam danañ tëj sa loxo mooy li muy rek mooy dañ wara a doylu ndax eh, ki la may cere boo yàkkamtul amaana dencoon na ñeex te tamit nag ki la cere mu ne soo ko gàddaayee ba tax nga dem ci feneen wala ci leneen amaana doo fa fekk cere wala doo fa fekk cere ju neex dama la bëgg a wax rek mooy sa mbëgg lu njëkk fa la ko yàlla jaarale fonk ko nga toppatoo ko tey nag nit ñi dañ mel ni dañ nekk ci faydu boo xamante ne faydu bu bees la ndax eh, kenn xamatut fooy teg sa tànk loolu yëpp nag eh, soo ko gisee rek ca ndëgg lu njëkk la eh, taalibe bu fekkee nag togg ko ñor la te ñu def ñu wax jamono mu ne mu ne yàpp yàgg ci taal du ko yàq am na nu muy ñoree màgg mu amatu bëj sax dana ko mën a jëriñoo rawatina ndaw loo xam ne am na kàttan mooy ne rek tarbiya bi bu fekkee ne jaaral nañ ko ci yoon mu xaddam bi yàkkamtiwut taalibe def ko te yàlla rek tax taalibe boobu ba béytam yàlla du bokk ci taalibe yi nga xamante ne duñ xam fi ñu taxaw coow li nag bari na lool waaye loolu itam fay doon rek Cheikh Ibrahima moo ne mel waaye dëgg gi moom benn dëgg la moom la Cheikh Ibrahima indi moom la ñu xamal beneen dëgg moom dootu am mukk kon nag di dénk suñu bopp dénk mbokku taalibe yi ànd ak suñu sago ñu ànd suñu xel te xam ne kenn du Cheikh Ibrahim te kenn du fi indi kenn dootu fi indi li fi Cheikh Ibrahim indi ba pencam yàlla may yi moom mi ngi yem ci li nga xam ma xam ko gannaaw may googu moom leneen lu ñëw nag rek ndollonta la ci biir may googu waaye beneen may moom bu mën a jommal xaalis wax dëgg yàlla desul ci biir yàlla bi kon nag ñu ngi dénk suñu bopp di dénk mbokk taalibe yi ñu gën a góorgóorlu gën a àndoo surtout te xam ne faydu moom Cheikh Ibrahim mooy ki koy kondiral boppam amul keneen amul leneen amul feneen koo xam ne am nga maqaamaam bu kondiral ko. lan mooy kàddu gu bi. kàddu gu mujj bi mooy sant yàlla ñaanal suñu xalifa Papa Cheikh yàlla guddal fanam defal ko wér ñaanal sama sëriñ Cheikh Abdou Barahama yàlla defal ko fan wu gudd loolu wa ànd ak wér suñ am na Ahmed si Cissé yàlla defal ko fan wu gudd wa ànd ak wér ah dénkaat sama bopp dénk taalibe yi ñu fonk Cheikh Ibrahim ak njabootam gi ko. suñuy maam defaluñu ko suñuy milliards defaluñu ko suñuy millions defaluñu ko kon ndimbal la ñu daje ak moom nañ ko fonk nañ ko màggal tey nag ci kaw suuf ci li doomu aadama di noyyi màggal fi Cheikh Ibrahima man tawee suma màggal njabootam wàccee leen seen wàccuwaay yi jox leen seen gëdd yi sukk seen kanam fokk suñuy mbaxane xam na tey kenn ku nekk ci ñun la tax ñu toppal wala lu tax ñu lay sukkal ñoom seen baay la waaye du sa baay amu ci kenn benn muqaddam boo xam ne rek sa alali bàyyi nga ñëw ci faydu bu tax ñu lay sukkal ñoom ñooñu nga xam ne nag seen bàyyi ci mbaaxam te mu mënoon ko yamale ci ay doomam mënoon ko yemale ci ay sëtam ñuy dem di ko uti di joxe suñ alal di joxe suñ doole te lu tax ñu am ci lañ bëgg waaye nag boo dajeeg sëriñ bu ma tey jamono ba pare man jamono da ngay foog na yow la waaye du ñun de ko ci foog na yow la rek gënal gerte gi boo génnee gétt gi da nga xam ne weñ ñoom am nañ fulla am nañ fayda kon li may dégg taalibe yi mooy nañ fonk doomi bàyyi danañ leen màggal danañ leen jox suñu alal te nañ leen nangul doomi bàyyi rek sëriñ ab dafa wax mu ne ñëpp a yem ñoom ñëpp a yem te loolu Cheikh Ibrahima moo njëkk a dimbale ndax ba may wax ne dama ñaan yàlla sama doom yëpp booba jën ca xay bu ñu nekk ay wàllu yu xam nga mënoon na wax ne damaa ñaan yàlla la ko dalee ci baaba label ba ci sëñ Makki ñu nekk ay wàllu yu la ko dalee ci sëñ Makki ba ci diw sàngam ñu nekk ay xutbi waaye dafa bokk maaseen ñoom ñëpp ci ñu nekk di ay wàllu yu wàllu yu nag wàllu yu rek lay tudd wàllu yu moom du leneen lu wàllu yu kon li ñuy dénk daal mooy na leen leen màggal na leen leen fonk te fonk pays Cheikh Ibrahim bi te muñalante te nangulante itam taalibe yi nañ nangulante may ci biir yàlla yamut te du masa yam foofu daal la ñuy yow suñ kàddu comme temps bi dafa kat di la gërëm ci yitte di la gërëm ci sa pas-pas bari na jataay yu ñuy daje te lay jàllale jataay bokk nga ca te kenn jox la loo ko jàllalee yaay génne sa poos def ci yaa jële sa poos jël oto yàlla nga dem ba bés ñu toog adduna bi yëpp di jàkkaarloog sa tele bi te ci biir faydu bii nga koy amee yàlla mën loolu yàlla yàlla def ko ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp waa axiru dawaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah